asalaamaaleykum asalaamaaleykum wax naa leen ko tubarkàlla masala yéen ñi toog di ma seetaan maa ngi nuyu kenn ku ne ci turam ak santam dellu si waat naa nag ci biir mbanal yi topp tabaski ma ne leen topp tabaski bi rek tubarkàlla di dem ma ànd si nag ak Sénico mu di ma dooleel tubarkàlla masala andil ma vermicelle amira waaye andil ma moutarde amira waaye andil ma kadi moutarde tam kadi am na waaye kadi am personne mi ngi nii tubarkàlla masala waaye diwli ñu kadee ngi nii kon Sénico jaaraama Sénico ma ànd ak nag ki nga xam ne mooy Firi firi nag tubaarkàlla macha allah kenn ku ne xam na ko firi daa wàññi ay mbiram ngay firi jëm ci tabaski ji looy jënd jënd ko ci firi looy fay fay ko ci sa téléphone ak firi firi dina la may juróomi junni fukki junni fanweeri junni tubarkalla ñàkk ànd ak dafa wóoru ndax fi bi toll nii fi mu ne nii il faut ñu ànd ak firi même boo bu la neexee jënd ko ci firi firi la fay sa yëf tey nag ñu am gan tubarkalla li ma leen wax chaque jour leen sa jour rek am na ku war a toog fii ma bàyyi koog yéen mu ñëw toog ngeen découvrir ndaw ko mu wax ñu lan lan la fa yéenee togg kaay la ñu dem ñu xool kan mooy sama gan dëkk bi toj mu yëngu ñu topp tabaski bi rek tàllal dem ak moom. waaw wax ko dëgg la. tubaarkàlla masala nag gan gaa ngi noonu ki ma leen doon wax Ndeye Amy la tudd Ndeye Amy nag ku ne xam na ko tubaarkàlla mooy femme bi gën a yëngatu koo xam ne day xeex ci réseaux sociaux yeeg di def ay xam nañ ko muy défendre jigéen ñëpp xam nañ ko Ndeye ngi lay nuyu bu baax a baax maa ngi lay loolu nuyoo bu baax a a baax gise maa bo di li nga xam ne mooy topp tabaski yaa ngi nii ci waañ mi nag tey kontaan naa kontaan naa di nuyoo mbokku téléspectateurs yi ñuy seetaan ñëpp ci àdduna bi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen sargal tubar fakkalla macha allah di wax ni tey fii ma ñëw tey damaa kontaan ndax damaa jàkkaarloog sama xarit sama mag sama confidente macha allah yow xam nga ne yow koo woo ku nekk day daw ba dàllam dagg tubarkalla loolu ndax loolu mënul ñàkk tey nag ñun ñoo xam ne ah, yaa ngi ci waañ wi mhm. ma fa xam bëgg xam lan nga fa yéene tomb parce que ñun ñoo ñu gën a tubarkalla da nga ñëw rek wax ñu loo bëgg waa tubarkalla xam nga dañoo jëm ci tabaski nga dëkk Kaolack ma dëkk Kaolack mm. tubaar fakàlla ma laal ci ñaari boor nag nekk jolof-jolof ak saalum-saalum waaw xam nga ne ñun bu dee togg ak yooyu ba ñuy nekk ba âge lan ñuy togg lan ñuy dekki la loo rey mhm. kon mën li ñuy def mën nañ ko tubaarkàlla waaye yowit na nga indi dépense bu mat mhm. ñu dem laal xar mu baax am fuñ ko laal mhm. ñu fasee naa def rek saaf rek saaf waaw saaf rek ngay def saafu Kaolack tubaarkàlla ma jaar sa di nuyu Mbaye Ngom suma directeur soo laalee Kaolack ndax ndox ma daa saf xorom nit ñi saf xorom suuf sa saf xorom tubaarkàlla aji jaara nee na ëppalul dafa am xorom kono dañuy dem ci li nga xam ne la mooy saaf bi nga xam ne waa Kaolack noonu la ñuy saafee ay ca ca saaf ko nday ami léegi-léegi ñu ñëw ci li nga jëkk a def waa ci li may njëkk def mooy xam nga Bye. sa yàpp nga def teg yarandil waaw tubaarkàlla macha allah Pendo xam nga togg dafa ànd ak set mm-hmm. ndax luy dem ci biir moom faaw nga defar ko ba mu baax dañu mm-hmm. dal di nekkali suñu ndawal ba mu baax rek waaw ndax raxasoon nañ ko sànq ba mu set waaw ko ba mu set di def la comme da ngeen di saaf ñu xool waa Kaolack nu ñuy saafee ba tey baax na yàlla mën na lu ne Pendo xam nga ni fii tey du yomb mm-hmm. ndax tubaarkàlla diggante Ndakaarook Kaolack laay dama koy may sama directeur ba maa la ko wax ak ak firi eh, xam nga boo firiwul doo maa la wax loolu wax ay bal maa ngi koy may sama directeur ba mbay ngoom ca Kaolack sama waaja tubarkalla masha Allah directeur Cœur de Ville yaa ngi tudd ku baax aka bëgg saaf yaa ngi baax mbay ngoom waaw waaw mhm. Mhm. dañuy laal kii xorom tuuti waaw da koy laal ak xorom waaw dañuy laal ak xorom tuuti nii rek daal di laal suñu kii kadi kat yi. jërëjëf. waa Pendo. Mhm. xam nga li kat di liggéey lépp. maa la ma tegal la ci li kon. ma tegal la du fi ngay saafee. waaw foofu lay saafee baax na. foofu lay saafee tey saaf ba dëkk bi yëngu. lii laa wax bisimilah rahmaani rahiim. mu saaf tubaarkàlla macha allah. xam nga lu ma neex si kat yi. Mhm. pour xolli ko yomb kiiwul méttiwul. waaw méttiwul waaw ba pare kenn du ko mot a xool da ngay rek bés. ba pare non seulement boo ko tojee nii ba noppi. Mhm. xam nga ñun ay saalum saalum lañu. te dañuy bëgg ay kaaneek di ci def ay kadeek ñooñu noonu. saalum saalum laa saalum saalum laa saalum saalum yaa ngee. waaw saalum saalum laa ndey ami saalum saalum laa. la waaw waaw dañuy jël nag sunu diwliñu kat yi diwliñ ji nag mu set wecc tubarkalla masala dugg leen ci marché bi ngeen dem xool ko ngeen cons ko bu baax a baax diwliñu kat baa ngi noonu man xam nga diwliñ ji bi ma koy door gis nii mhm. am ndox laa ko tegoon ndax set mhm. dafa leer waaw ay ja bismillah rahmaan rahim ñaw day saaf nee na laay laay li laa waaw waaw Uh-huh. te xam nga li ma neex ci diw gi mooy. Uh-huh. gars yi dañuy jooy naan ay cholestérol ak kenn xamul. amul cholestérol tubaarkàlla mm. diw gi amul loolu. léegi nañ teg tuuti nii. xaar diwlin bi daal di tàng. waaw daggal say soble. foofa toj. ma di la xoolal saaf la wax. waaw saaf bi soble bu ñorul la yàndal. wala da nga koy tiital dama koy tiital rek. ok xam nga àdduna léeg-léeg ñu lay tiital nii ay yëf. dañuy baax comme firi nii. waaw bu la tiitaloon. léegi dina la neex. waaw moo tax dañuy daal tiital soble si rek. da ngay tiital soble si rek ndeysaan. nan da ci laal tuuti marinade. yee dëkk bi yëngu na. ñaw maa ngi doog a gis ku toggee loxo. saalum saalum dëgg nga nag dëgg dëgg. waaw xam nga xam nga ay kudd ak yii nii dëgg la. dëgg la ndax jamono day développé léeg-léeg. Mm-hmm. waaye loxo li mën a def. Mm-hmm. kudd mënu koo def. dëgg la. waa danga koy daal di def nii. mariné. xam nga kuy ànd ak kadi doo ragal. Mhm. kay baax bisimilah rahmaani rahiim. voilà. lii mooy dëgg ma yëngalal la foofa toj. kay baax ma yëngalal la. kay. lii dëgg. ndax mu fi toog xam nga démb sama ñoom yaay. Mhm. loxo lañ doon roosee. mais ñun xale yi dañoo tàmm ay kudd ak ay yooyu bu la fiti kudd gi na ne tàdd rek tibbal rosi tibbal rosi mais bul sànni rosi kenn ko sànni da nga koy yoor baax na boo sànnee dangay ngay lakk sax ay ca mm. comme comme kii la da koy xaw a rondel ni ah yow bi ngay dagg waaw dama koy rondel comme sa pour boo demee ba war a taaj yooyu noonu mu xaw a kii mhm. mu taaral sa taaral bool bi mu taaral sa bool waaw dëgg la waa Pendo mhm. tubarkalla macha allah bi may ñëw. Hmm. dama am sama benn xarit bu ñuy wax ndëpp seen. ndëpp seen. waa mu ne ma comme dangay jàkkaarloo jéeg Pendo Guissé. waaw waaw kaay ma jox la lii nga dem duggee ko ca waañ waaw dégg nga lii moo tax nga musóoru. waaw gis moo tax ma daal di musóoru. waaw kay baay foofa nee na foofa wàcc la wax loolu. moo tax nga musóoru waaye li ñu indi dafa neex tubarkalla ndax saaf ku ne xam na ni dafa neex saaf rek noonu saaf sa yàpp noonu def sa soble rondel noonu. waaw gis nga day féexal xol bu la neexee sax bu dee comme naar yi nii. Hmm. léeg-léeg dañuy jaag jël attaaya teg ci wet gi. waaw baax na was. waaw di yootu ci ndawal li di sax. Hmm. di taasimee attaaya ja. ah yow mu def nga da nga def Mauritanie da nga def fële Maroc. waaw. ndeysaan. waaw nga daal di xam ne. def nga Maroc moom kala moom jaar na ci gaal yi sax moom mii. <laughs> kay day jaar naa ci nag. bi dinañ ci waxtaan bu ci kanamee tuuti. waaw nga wax ma bi gaal gi gi bi gaal gi duggee ba ci biir géej gi ba vague yi di daan lan nga yëg. ah tabarkalla jaar naa ci de. laay laay li laay rescapé la. rescapé rescapé de gaal naufrage. <laughs> dégg nga des fois dañ ciy waxtaan sama xarit la kii. jaar na ci gaal yi yow bi gaal gi këppoo rek noonu daya bi il faut loolu mën nga togg torobee dinaa la ko laaj bu ma paree. foog nga wax ma lan nga prier wee ndax da nga prier wala da nga sóobu da nga feey. dama doon raam dama doon raam boobu mënatuma ndox. laay laay ma doon raam. naar yi naan ma asi asi. laay laay <laughs> ci montagne yi. lii. loolu dafa doy waar. ndeysaan la ku ko soxla tam mën nga ko jël mu di la toggal tubarkàlla macha allah dafa mën a togg ba pare day liggéey ay télé ay rende bi daal mooy dans kii ngeen di gis nii mu taxaw nii dans tous les sens da moom mën na lépp day liggéey na fépp daal ndey bi daal yow xam nga Ibou Cissé gi mooy sama sama professeur waaw baax na xam ndax moom lu ne mi ngi ci commercial la waa gis nga mu hmm. ne ko gis nga dégg nga lii rooroo nga ko def ku fi mës sa ñëw kaara def ak bu gudd bi tey nga ñëw laal ma ronron musi mustaam xam nga ak saaf moom saaf waaw saaf ronron laa àndal waaw dafa am lu xam naa suñu kàkkata dina la war di woo sax nga ni saafal ci côté bi waaw gis nga da koy jar de ma ne ko duma ne na déedéet léegi lii loo ciy laal nii fi mu toll nii dama ciy laalaat tuuti lii marinade hmm. nga ci laalaat laal ci tuuti sa vinaigre vinaigre kat yi mu ray soble si tuuti mu tiital soble si daal jarul kii comme dara du fi tiit fi nii lépp la ñuy rey waaw man ko waaw waaw. waaw gis nga ñu daal defee nii tuuti dañuy def vinaigre nag lu yem rek. waaw lu yem rek ngay def waaw lu yem rek. merci beaucoup dama bëgg togg bu nag. ko baal. yaay ba du léegi dañuy dem ci tiital soble bi. waaw dañuy dem si tiital soble bi léegi def naa ci marinade def ci tuuti vinaigre kadi. waaw. dama siy def tuuti. kadi am personne moo taxal ko tuuti waa daal di koy def nii rek. dëgg la tuuti rek mu yem. da nga koy tuuti rek waaw. waaw daal di def nii. Mhm. xaw ko jaxase yooyu. ayca sotti tuuti dawlin nag jarul dawlin bi di bëri tuuti rek. ngay daal di def. waaw man diwlin ji bu dul ndox jaaxal na man de li yàlla mu mbëkkanteeg moom sama kër naan ko. ñaw ñaw. ah tabarkaale rek ngay def waaw loolu tuuti rek moom. waaw ayca mhm. ñaw. Aïcha comme da nga koy tiital rek. waaw dañuy tiital rek. waaw soble moom tiit da caa baax. waaw gis nga. Hmm, soble yi foog nga koy tiital. gi ñu préparé di tiital soble yi. waaw gis nga. Hmm. te da baax sax. mu xaw a lax tuuti day dindi am soj waaw fekk boobu def nga say ñoom pooba rek. ñoom yàlla may xar munu tiitalee soble. amiin waay. damay ragal nit ñi jël seen sablay rek diko ko tiital nii <laughs> dinaa seen kuy bokk ak am benn benn fereer mooy téyel sama ndig ndaay mi daa pare nga de. pare naa kon dugg si. ndaay mi boo yegsee maa la ko wax maa la ko wax tubarkal masala et eh, je savais je savais je savais que ni lay demee tubarkal masala waaw saab waa wax waaw tubarkal masala nag day amee ni nga dugg see neex na tubarkal masala togg nga ko ci heure yekk ko ci temps tubarkal la may kontaan trop ma leen di wax yéen a ngi ci topp tabaski ya ah, mooy li nga xam ne mooy mbanali ñu dugal ko ci biir topp tabaski bi ma fas yéene ci ànd ak ah tubarkalla masala ñi may gunge rek muy Sénico ku xam na ne Sénico tubarkalla moom indil vermicelle amira indil ma macaroni amira ah indil ma tubarkalla kadi ah vinaigre kadi indil ma moutarde amira indil ma moutarde kadi ànd ak man tubaar kalla ah, ak yu baax yi ma ànd ceeg nag firi firi moom mënut a ñàkk tubarkalla firi leen ñu jëm ci tabaski bi firi nag dafa wàññi ay pireem ba commencé par ñaar téeméer lépp loo jënd mën nga ko jënd ci firi ànd leen ak firi boo leen bëggee seen tabaski firi ndax tabaski bi ñàkk cee ànd ak firi daa wóorul ndax ku bëgg firi àndal ak firi nday ami ñu kontaan bu baax a baax may wax ñi lay seetaan nga wax leen li nga xam ne noonu nga saafee ah waa Kaolack ñi ngi lay seetaan nag mbay di la nuyu suma directeur boobu tubarkalla ma te nee na aw ma xar Mbaye Ngom am naa buub waaye aw ma xar tubaarkàlla ndaa mi noo saafee waaw tubaarkàlla Pendo xam nga rek dañ koy def xam nga yàpp tabaski mhm. faaw nga koy am noo ko defee pour mu gën a mën a neex a lekk ndax fër dafay yomb waaw moo tax ñu daal di wàññi dëwlin bi rek mhm. donte sax liñ doon toggee amul cholestérol amul dara tubaarkàlla mhm. ndax ñoom kadi ñoom dañoo pare ba pare la moo tax ñu daal di def suñu saaf rek def suñuy kal kalma ñàngaan daal di tiital soble ba teg ca ñu mënta ñàkk ñu daal di ko cay def ah, waaw kay ko ci benn bi daal di mu teg ca wet gi man bëgguma di toggaale mu tàdd ca ca cin la. ma ndax ah. mën naa dar ci cin li. day da nga koy daal di sotti ne ci côté noonu ku mu neex càpp tubaarkàlla ku bëgg rek daal di càpp voilà ñuy kontaan loolu tubaarkàlla ma leen di wax ne émission mbanali la mbanali nag tubaarkàlla dama cee cof tuuti rek daal ko gunge tabaski di ko ma teg cin lu a ku ko ñeme da ngay ñëw nga xam ne si nga bokk yéen sponsor yooyu tubaarkàlla di ma bokk si ndax lépp ci la bokk damay soxla lépp damay soxla lépp tubaarkàlla macha allah borom vaisselle yi dafa daanu sama kaw muy Adja Adja vaisselle ku ne xam na ko tubaarkàlla dafa jongo ma mm-hmm. dafa daanu day daanu sama kaw dafa indi vaisselle yu baax yi di ci def kon mbana li leen ko te xam ne après tabaski dama koy mm-hmm. may tàggoo mooy que ma gunge mm-hmm. sama xarit boobu nga xam ne du tey démb la mm-hmm. tubarkalla di kontaan ci yow tamit pendoo nga nekk nit ku ñàkk ki ñaan waaw nga teg ma loxo rek te ne doo ma ko teggi li nga bëgg ci li nga bàyyiwuma kenn su ma limee du matale te bëgguma tudd kii ñàkk tudd kii defe naa ne bu duggee Gambie damay taxaw mhm. bu duggee Gambie damay taxaw di ko may ku lu Gambien tubarkalla masala képp koo xam ne yaa ngi maa seetaan maa ngi laa may lii tubarkalla fekk la sa biir kër ne la jàpp loxo di ko may ku lu Gambien commençant par ba daa mbaalo daa waaye bu ma ko waxee damay Adam Gomez sama xarit ba borom Norvège kon plat bi maa ngi leen koy may yéen ñëpp nag di wax nit ñi ba beneen yoon jibi loo ma may rek moo yóbbu ngéwal